man ku ma woo baay ma wuy allah ya allah Baramien TV yéen yéen woonu baay allah ya allah. kóllëre gi nga xam ne. moo dox diggante Touba ak Medina bàyyi waaye duma wax sax na bàyyi kawlax ndax maam Alaaji Abdoulaye Niass la ak sëñ Touba Xaadim Rasoul ñoom ñoo bokk jamono bàyyi Niass radiallahu taala anhu bokkul ak sëñ Touba jamono Baye ci ña gën a ndaw ci at ci doomi maam Alaaji Ablaay ci la bokk euh, buñ ma waxee bokkuñ jamono nag mooy maanaam doomi Cheikh Ahmad Bamba yi ñu bari ñoom ak ci at waxuma laa sëñ Modou Moustapha waaye sëñ Fallou moo mag baay ci at fuuf kon kay baay baay ñes muy alxaaji abdullah moom la woon ak xaadimu rasul euh, kóllëre gi wax naa ko léegi mu andi lii tey jamono jooja téere dafa jafe téere léegi la yomb de waaye dafa jafe woon Cheikh Ahmad Bamba yàlla mayoon ko nag mu xam moyen pour am téere ci naare ganaar yi nga xam ne dañ daan ñëw ci moom moom itam muy dem Mauritanie ndax jaar na fa loola moo ko yombaloon téere mu yëkkati tafsirul jalaalayni nga xam ne moom la ñuy firee alquran yëkkati ko jox ko mbokkam xaritam wóllëreem muy maam alxaaji abdullah mi jur Baay Ñas waaye emut ci loolu daf cee boole ay bayt ay woy tagg ci maam alxaaji abdullahi kañ ko ci bakk ko ci wax mbokk gi dox diggee seen diggante ñoom ñaar muy lu rafet lool maam alxaaji abdullahi kontaan lool ci cadeau bi nga xam ne xaadimu rasul jox na ko ko muy tafsirul jalaalayni moom itam moo sant doomam muy Baye Khalifa mi jur Sidi Lamine Niass jur Ahmad Khalifa Niass muy taawu maam El Hadj mu sant ko ne dama bëgg nga tontul ma sëñ Touba muy xaadimu rasul ci tagg yi ma tagg ci ay bayt ci même xaafiya bi la ko Sidi Mouhamed Mouhamed Khalifa Niass tontoo. xaadima rasul macha allah kon ñoom ñaar benn la ñu woon. kolore googu di continuer ba diggante Baye Niass ak sëñ Mouhamadou Moustapha Mbacké muy taawu sëñ Touba. kolore googa continuer ba Baye ak sëñ Fallou Baye gane ji sëñ Fallou sëñ Fallou kontaan ci moom ba añ jotee sëñ Fallou mu ne. gis nga gaa yi ku leen bayee ku leen bayee togg gi seeni gan lañ koy jox seeni waay lañ koy jox mu takk ndigam daldi dem ca waañ ba waaye kii ma am teraanga sama gan maa koy jox maa koy tibbal li gën daldi dem ca waañ ba indi jox cheikh cheikh al loola ak fonkel ak yëg gum ko yëg mu ne ko nag képp ku fi ma sa ñëw fii bu ma lay gunge du ma paase sama sama buntu kër gi gis gi fa laa yem yow waaye yow Cheikh Ibrahim ñas danaa àgg ak yow fu mu mës a ak yow ndax dangaa mel lu kiir mi nag mu ne ko danaa la gunge mu gunge ko ba Gosaas euh, ba ba Njaareem xoola Touba ba Njaareem mu gunge ko ba Njaareem mooy foto bi nga gis bàyyi ànd ak sëñ Fallou mu lëng ko nii photo boobu la ki ko fotoon mooy cheikh alhaaji baara mbàkke mi mujj nekkoon xalifa sëñ Fallou moo ko foto euh, kon kóllëre gi yàgg na mag ñi daal benn la ñu du ñaar Money